évidemment euh, ngay économiste ñu am chance boobu noonu euh, mooy mbirum euh, situation économique du Sénégal dinañ ci ñëw gën ko xootal Ibrahima tu as le salut de Euh, Fabrice Ngema moom benn problème la am mooy woyafal woyaf woyafalam bi day ruus eh, rek léegi muy jënd courant rek te bàyyi yi muy def. Eh, déjà woyafal bi sax dafa am problème de recharge. mi ngi bari ko ah. bi aussi bari na lool ci jënd beeg euh, kii. mais mais nag Fabrice Sénélec ci dimbali. Ah. beneen bi mooy bi euh, bi dama koy def appel Sénélec ñaari fan maa ngi woo ma plutôt seen o. ñaari fan maa ngi leen di woo. quartier bu ci mel ni Parcelles Assainies unité vingt cinq vingt deux vingt six quartier yooyu yëpp ñetti fan amuñu ndox ñetti fan laa la amuñu ndox maintenant nag ça euh, am na am na benn am na benn euh, kër bu ñu ne ñoom woo nañu seen eau mais bañ ñëwee xam dañ ne ak taw beeg yu mel noonu tuyaux yi day fatt ak yooyu kenn ka am na moo tax man ba ma déggee loolu ñetti fan maa ngi woo waa Sen'Eau léegi nag appel boobu defar defar naa leen ko ci biir en direct fii ci fii ci émission bi nañ leen dimbali surtout quartier bu mel ni unité vingt cinq parcelle sorowul moo jàkkaarloo ak stade bi man fa laa dëkk sénégalais yi ñu ngi sonn ci ñàkkum ndox mi foofu mën na nekk ay dysfonctionnement donc waa Sen'Eau nañu jaar foofu xool problème bi fan la ñu jëm ko décanté Ibrahima Pouy mais man ci loolu laay jaar ah. mhm. euh, ci parcelle boobu tali bi jóge ci rond-point 26. continuer ba. continuer Grand Médine. ba BRT dem mhm. la boo xam ne li ko oto yi di jël par jour kenn xamul nu mu toll. wallaay mais tali boobu. yàqu na yàqu na xeetu yàqu goo xam ne. je crois que am na loo ne warul sax xaar. ñu mhm. koy def priorité. Mhm. ndax boo jiitee ab réew. nga gis ne am na ay grands axes yoo xamante ne. fii c' est tellement utilisé et pratiqué par les citoyens et les riverains. Mm-hmm. je crois que ak actes yooyu dañ ko war a jël tenir en compte. te waa Grand Médine ak waa Parcelles. Mm-hmm. sonn nañ ci tali boobu. bien sûr donc na Ageroute. Mm-hmm. ak FERA ak état bi. dimbale secteur boobu ñu ñoo defar tali boobu. jërëjëf. maa ngi lay gis aussi sa vidéo bi ngay lancé ah. gis naa ko saxal naa ko pour gars yi jàpp ci ndox mi. bien sûr Fabrice Ngamath nag moom la mu lu mu wax parce que moom grand frère la mooy président Gabon. waaw. général Nguema kañ ah, magam la kañ nag millionnaire mais day la Fabrice tamit nag. Fabrice na am général Nguema nag. ba pare question. Ah. Euh, Seydina Mohamed ñun question bi ñuy waxtaanee question de liberté la wax. te liberté bi ñuy gën a wax mooy liberté d'expression. Mhm. liberté d'expression bu ñu koy wax dañuy wax ne ak ak yelef doomi aadama la boo xam ne. Mhm. nit ku nekk suñu borom dalaa may sañ-sañ. Mhm. ngay wax li nga bëgg ci ni nga ko yëgee waaye nag ñu encadré ko structuré ko. kenn werante wu ko. Mhm. mais bu ñu xoolee diggante avril bi président Bassirou Diomaye Faye nekkee président ak léegi. Mhm. Euh, liberté d'expression. dafa def ba mel ni léegi nag dañ ci commencé fitnaal ay nit. Mhm. damay jël le cas de commissaire Keita. def na video wax ne Bassirou Diomaye Faye président de la République ak Ousmane Sonko le premier ministre dañ doon xuloo palais. xuloo palais. ci mhm. loolu ñu ko jëlee ko kaso tëj ko tëj ko ci kaso mu ngi fa ba léegi liberté d'expression Ahmed Suzanne kamara li mu wax ak ni mu ko waxee man rafetlu wu ma ko te bés bu nekk damay wax naan war na toog baalu àq mhm. parce que am na kàddu yoo xam ne boo koy jëmale ci président de la république ak premier ministre am mhm. dafa war a teggi ne waaye warta tax ñu fàtt ko ci kaso ba liberté d'expression au même moment en proche du premier ministre Ousmane Sonko muy Azora Fall moom dafa jéggi liberté d'expression il a insulté la maman du président de la République Bassirou Diomaye Faye et tous les Sénégalais ñu xëy deux jours trois jours gis ko mu ànd ak le premier ministre di dox ay soxla c'est pour cela que nit ñi ñu bari naan y problème bu ñu jógee ci ñooñu mais un premier ministre qui fait une conférence de presse qui s'adresse aux Sénégalais Sénégal yi muy waxal ñoo ko fal Sénégal yi muy waxal ñoo ko fay. Mm. ñoo koy fay su waxee ba jeexal ku nekk am nga droit joxe sa appréciation par rapport à la chose. Mm. qu'il a dit joxe la chose qu'il a dit après su bu ñu koy gis ay convocation mm. de gauche à droite par rapport à conférence de presse te ci biir kàddoom moom Ousmane ko dafa wax ne. chiffres yi may joxe maa ngi xaar ba kenn weddi ko mm-hmm. en pleine conférence de presse en s'adressant aux Sénégalais. moom dafa am ku muy roy maa ngi koy wax démb Thomas Sankara des fois day roy Mandela. et le pire en est que la mais il a traité l'ancien président de menteur. ci biir waaw ci biir débat bi da ñëw foofu. tu vois hmm. donc su demee bay roy Mandela wala muy roy Thomas Sankara mais parce que ñooñ dañ nekk ay symbole en mais arrivé au pouvoir. Mandela dem wax naa citation bi mu wax dem ci wàllu liberté dafa ne il faut ñu dajaloo ñun ñëpp defaru fàttali fi amoon te bañ a piétiner kenn liberté bañ xañ kenn ak yelleefam loolu commencé waat Afrique du Sud à zéro teer lee kërel teer lee kërel dencaat lépp mhm. Thomas Sankara pareil maintenant quand on parle de liberté d'expression mais la liberté d'expression est garantie et protégée mhm. par les Nations Unies par l'UNESCO par toutes les républiques démocratiques Obama dafa wax ne nous devons défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression mm -hmm. car en fin de compte les mensonges et la désinformation ne font pas le poids face à la vérité képp koo xamante ne toog nga nga wax wax ji nga wax bu fekkee puy gis na ne wax ji nga wax dëgg amu ci puy am na sañ-sañ taxaw ne kat kaddu gi kat du dëgg mhm. loolu moo am ci par rapport conférence de presse bi nga xam ne moom am diggante le premier ministre ak ñi nga xam ne ñoom la ñu yóbbu muy Bougane muy Yérim Seck mm-hmm. parce qu'ils ont contesté les propos du premier ministre mm-hmm. Obama dem ba ci biir mu wax ne chacun de nous mérite la liberté de poursuivre notre propre vision du bonheur personne ne mérite d'être intimidé mm-hmm. moment bi ñu toll ci moment intimidation lañ nekk qui intimide d'accord le premier ministre n'a pas écrit une plainte kon na xam na mais Bougane bi mu demee et attendez tous les propos yi nga xam ne moom la ñu utiliser enquête bi yëpp dafa tourner au autour du propos du premier ministre moo tax mu am problème Yérim Seck